al ma seeni nopp ma xibaar leen li si yéenekaay yi campagne électorale bi gaa yaa nga ca ba tey enquête tuddee ko opération de séduction ndax candidat bu ci nekk yaa ngi xool nooy def rek ba askan wi daal di lay woolu ngir votel la Idrissa Seck si yéenekaay bi ne jàppale bu rëy dina ko jàppale secteur informel bi bés bu faloo Aly Ngouille Ndiaye ne moom it bu faloo dina dooleel napp gi joomaay président ne ay coppite dina ko amal ci yorinu ko suñu ressource naturelle yi Boubacar Camara ne bu faloo xale yi am juróom benn ñaar fukki at ak juróom dootuñu fay école maanaam rek jàng bi day gratuite pour ñoom Déthié Fall euh, ci le témoin quotidien ne dina fexe rek ba ñongal souveraineté alimentaire bu waa Saloum loolee mi ngi ko xamalee euh, ca kër Madiabel ba mu demoon niki démb ba tax yéenekaay bi ne foire promesse moo am ndax ku nekk rek ci candidat yi euh, yaa ngi dige ku dàq dige sa morom nga ni kee la en relief ñëw ci Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi nga xam ni daa demoon ca Diourbel Touba ak Guédiawaye Mame nga woon ca diwaanu Thiès mu xamle nii eh, Thiès moo waroon a nekk fi nga xam ni fa la lépp di dooree eh, di dem ci échange bi nga xam ni mooy échange terrestre bu réew mi xalifa Sall ci le regard eh, yéenekaay daal dinay joxe ay dige ngir nag andi coppite ci mbay mi ndax nee na bu falo at bu nekk dina génnee mille milliards dugal ko ci secteur primaire bi te mbay mi ci la bokk Thierno Alassane Sall ci 24 heures nee na dina wàññi doole bi nga xam ni moom la ñuy jox njiitu réew na ci wàlluk yoon ak yoonal ba tey ci yéenekaay bi euh, Mame Boye Diao moo ngi fay fësal bëgg-bëggam jëm ci mbay mi beneen candidat di Malick Gakou bu ñu sukkandikoo ci teral quotidien li mu bëgg mooy dal di wàññi njëgal dund gi Khalifa Sall ci l'info yéenekaay xamle na nim ni mu bëgg dundalee réew mi Aliou Mamadou Dia bu pur moom itam ak programme am bi di nit ak naataange fësal na na ni euh, dundi ndukku nit ki ak yokkuteem euh, moo soxal Anta Babacar Ngom moom bokk na ci ay bëgg-bëggam waaye li doy waar euh, mooy rek li les échos xëyee tey euh, te mooy rek ndax yéenekaay bi nee na euh, Macky Sall bàyyi na Amadou Ba ngir bun joon mu teg ca ni ay pexe moo ngi koy nas ca APR ak Benno ngir rek ñu daal di isolé Amadou Ba waaye daa am ñoo xam ne nanguwuñu ndax nee nañu Karim Wade nekk rek di di neexal ngir mu mën a ñëw bu dooleel ki nga xam ne moo di bun joon ci réunion secrète bi nga xam ne amaloon nañ ko ca building euh, Macky Sall daa bloqué fon bi nga xam ni moom la Amadou Ba waroon a campagne ba tax la l'observateur ne euh, diggante Macky ak Amadou daal lëndëm na trop le réveil teg ca ni Macky Sall ak nitam kay euh, dàqaat élection yi la ñu bëgg mari tew ñaan si yéene kaay bi ne plan bi nga xam ni Macky Sall teg na ko ngir saboté jongante njiitu réew yi mooy amal li nga xam ni moo di ab coup d'état direct news ne ay bés euh, yii ñu ñëw wala ay bës bii ñu nekk euh, dina nekk rek loo xam ni euh, lu ne mën na cee xew fii ci réew mi ndax ngir ñu toxalaat élection yi PDS ak ñenn si ay candidats spoliés bu ñu sukkandikoo ci le républicain déposé nañu seen recours ca cour suprême ba tax Dakar Times samp ab laaj ne fu réew mi jëm ndax ñoo ngi ci diggante li nga xam ni moo di njumte yi nga xam ni moom lañ tuumaloon waa conseil constitutionnel cour suprême ñu daal di koy saisir ay jeexi jaax élection yi dina amam dét euh, ba tey ñu jëm ci li nga xam ni moo di libération Ousmane Sonko ak ñoñam euh, ba tax lii quotidien ne si ñaareelu report euh, présidentiel yi ca la ñu jëm waaye jëwrin bu bees bii di bi nga xam ni moom moo gàlloo kaaraange biir réew mi di Makhtar sise moo ngi dalal xel yi ci l'Express quotidien mu le ci l'Indépendant ne tànne fu njiitu réew yu vingt 24 mars yi dinañu ko amal ci dal jàmm ak kaaraange ndax dina fexe rek ba matériel bi nga xam ni moom moo lépp li nga xam ni moom moo war ci yooyu la mu daal di koy matale euh, ba tax na sax état bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci révélation ne bib lay daal di génnee euh, ngir ñu saytu kaaraange candidat yi teg ci libération di ñu xamal ni matériel électoral bi lépp yemb na euh, te it nag yóbbu nañu ko ci biir réew mi ak ci bitim réew Makhtar Cissé ci yéenekaay bi dolli ci ni Sénégal bi nga xam ni moom moo ko jox lépp moom it Sénégal boobu mën naa jàpp ci moom ndax dina ko delloo li nga xam ni moom la moom moom réewu Sénégal waaye la quotidien nee na campagne bi moom violence fës na ci torop gannaaw Parcelles Assainies Pikine moo jël ci diggante apériste yi ak farandoow ki nga xam ni moo di Bassirou Diomaye Faye ba tax la l'observateur ne Diomaye président ak Benno Bokk Yaakaar ci xeexoo bu metti la ñu nekk ci diggante mbooloo bu bari ak ay militants yoo xam ni seen candidat jaral na leen lu nekk réew mi quotidien di leen ca feelu ndax yéenekaay bi nee na violence baa ngi gën a bari ci campagne bi ndax siège u APR fukki nit ak juróom jële ci ay gaañu gaañu am kenn ci ñoom koo xam ni gaañu gaañu gu métti la am ndax jaasi lañu ko dóor ay oto yitam ñu daal di ko fay euh, tojate waaye bës bi la journée na candidat yi nga xam ni euh, ñoom ñoo génnee ci yeewi askan wi ñoom du ñu laale kenn du laal sa morom ñoom ñëpp kenn la ñuy xeexal te mooy Amadou Ba ndax dañuy xalaat ngir ànd ci deuxième tour yi en tout cas l'informateur nee na transhumance léegi daa daal di wëlbateku au lieu que ni ñi di dem utali ci pouvoir bi ñëpp a ngi jëm wutali coalition Diomaye président Jean Baptiste Diouf yitam euh, di maire bu Grand Dakar candidature ci élection 2024 yi te bu mujjee woon tekki ndombol tànkam alerte quotidien moo ngi ñuy xamal ni fekk si na ki nga xam ni moo di Khalifa Ababacar Sall ba tax yéenekaay bi ne moom Jean Baptiste Diouf daa ñibbi si këram fii la ñuy ndar keppeeli ci yéenekaay yi ma delloo leen seeni nopp ba ëllëg ak jàmm ci Nasiru TV jërë ngeen jëf